gu yaram euh, ginnaaw bu ñu nuyoo njiitu kër gi ñu ngi nuyu aussi personnel bi nga xam ne moo boot si ginnaawam euh, di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy safoo seen émission seen wér-gu-yaram tey nag ñu indil leen li ñuy wax ulcère gastrique muy benn méttitu biir boo xamante ni xëy na olof amalu ko tur mais nasaraan yi moom ulcère la ñuy wax gastrique euh, ulcère nag boo ko déggee dafa am ñaari xeetu ulcère dafa am ulcère gastrique ak ulcère duodénal ulcère gastrique mooy bii dal laal mbaax gi bi nga xam si biir mbaax gi lay nekk muy estomac bi ulcère duodénal mooy bi nga xam ne si duodénal bi lay duodénal mooy ko déggee mooy fi nga xam ne foofu la euh, li ñuy wax estomac muy mbaax gi di daje ak intestin grêle muy butit bu sew bi foofu la duodénal bi nekk donc ñaari xeetu ulcère yooyu ñoo am euh, beneen bi mooy aussi léeg-léeg nit mën na am métit fekk fu muy jugee si digg dënëm la koy sentir digg dënëm nag boo ko déggee moom œsophage ba tax ñuy wax œsophage mooy li nga xam ne moom mooy séparé mooy doole acol bi nga xam moo nekk si diggante gémmañ gi ak fi estomac loolu la ñuy wax œsophage foofu am léeg ay brûlure moom la ñuy wax brûlure d'estomac du nekk ulcère euh, brûlure boobu nag li koy indi mooy lan parce que boo xoolee mbaax doomu aadama dafa am benn der ko lal bu ko tapissé te der boobu mën na supporter acidité élément aliments yi mooy lekk yi ngay lekk acide ba sa nekk mbaax gi da koy mën a support ndax dafa am lu koy protéger lool yu protéger mbaax gi nag amul si œsophage bi moo tax boo lekkee lu acide boo amee remonté rek bu ñëwee day mel bi nga yëg ay métti si digg dënn bi donc yoo xamante ay brûlures lay def nga xamante yaa ngi koy yëg toujours boo lekkee ba noppi immédiatement or que bi di nga koy yëg en général ñaari waxtu ba ñetti waxtu après boo lekkee ba noppi donc loolu moo leen bu dee brûlure d' estomac yi mën nga lekk rek immédiatement après nga euh, yi nga xam ne œsophage yi mën nga lekk yëg ko mais bu dee brûlure d'estomac bi nga xam ne da nga koy am il faut deux heures temps après lekk bu njëkk nag dañu foogoon ni ulcère boobu lu koy sabab euh, mooy stress loolu la ñuy jàppoon loolu docteur yi jàppoon mais biñ demee ba si biir am na benn xeetu microbe bu ñu gis muy doomu jàngoro euh, bu ñuy wax donc Campylobacter pylori wala Helicobacter pylori donc dafa am ñaari ñenn ñi Helicobacter pylori la ñuy wax ñenn ñuy wax Campylobacter pylori donc xeetu microbe boobu mooy indi loolu ñuy wax ulcère beneen bi mooy aussi am na une part d'hérédité d'hérédité maanaam ñoo xam ne koy jël dañ koy donn dañ koy dañ koy jëlee seen doono nit dina am ulcère fekk dafa am famille yoo xam ne daf leen a yàpp donc am na paaru héritage bu si si nekk donc loolu mooy ki bi mais ñu ne ki am ulcère nan lay manifesté woo wax naa leen symptôme mu njëkk bi boo lekkee ba pare deux heures temps après da yëg benn métit te métit bi aussi guddi gi lay ëpp que bëccëg bi en général da ngay tëdd ba guddi mu yeel a xaaju guddi donc loolu nekk na du la wax ne dinay jam aussi si biir bi di aw aussi si digg ginnaaw gi léeg-léeg da ngay souvent danaa la man daal sama biir day métti buy métti day aw si digg ginnaaw gi bokk na si symptôme ulcère boobu. beneen bi mooy nekk na loo xamante ni aussi buy métti day mel ni léeg-léeg paaka lañ lay jam paaka lañ lay jam. donc nekk na lu si beneen séntu boo xam te den kii am ulcère aussi léeg bu wàccoo da nga gis ay traces su muy sang boo xam ne dafay ànd ak lekk gi léeg sax mu xaatandi ko tufli deret ànd si fekk ulcère boobu sang bi nga xam ne mooy jógee si góom boobu moom mooy yéeg ulcère nag boo ko déggee góom la rek techniquement góom la boo mën nekk fa nekk si yaram bi mais communément rek nit ñi ñoo ko tuddee ulcère féetale ko ak biir mais ulcère moom boo xasee dégg mooy góom daanaka bu dul bu dul wér bu wala bu jafee faj loolu ñuy wax ulcère donc loolu mooy li nga xam ne mooy góom boobu ñuy wax donc ñu wax ni léegi ulcère boobu symptômes yi bokk na si aussi souffle court koo xamante ne sa nooy yi même léegi day dafay xaw a jafe soo lekkee aussi léeg-léeg booy lekk di wan da ngay yëg métit bu lekk gi wàcc am douleur booy yëg benn métit booy yëg loolu bokk na si symptôme ulcère gastrique yooyu ah ulcère nag lu muy bañ bala ñu ñëw si lu koy faj dañuy ñëw si lu muy bañ d'abord euh, wax nañ ni ulcère soo ko amee war nga éviter lépp lu am caféine daanaa ko fi wax ni caféine aussi lepp luy laal ulcère da nga ko wara éviter bokku na si par exemple guro gi ñu leen di won muy cola guro bi tay ji dafa nek lo xamne dafa am caféine caféine bi nek ci guro gi mom mo nekkat ci warga bi motax bo gisé bo boo ulcère ñu la bayil warga lu mel lo tax soko ko aussi war nga koy yemale wala mu oyof di jël ataaya bu léger te la nga koy jël aussi nga lekk ba suur ba xam sa biir dara nekk dafa la soog ko jël mais ataaya fort da nga ko doon éviter. caféine boobu moo nekk si kafe gi donc café bi donc caféine dafa am si café bi donc ni mu baaxul si ataaya noonu la baax noonu la noonu la bone si euh, lii ñuy wax euh, café meew mi aussi lu tax ñu leen di wax ni bu leen laal meew wala bu leen ko jël lu bëri bu nga amee ulcère ñu bëri yaakaar nañ ni boo amee ulcère jël meew. or que di nga am benn sensation buy wàcc sensation de d' apaisement dina la koy xaw a tane booy mais de ni boo ayoo de meew de quelques minutes après douleur buy ñëw multiplier wu de mel doubler waral parce que meew mi dafa am ay composants lu wax calcium dafa am de composants lu wax calcium am protéine am gras ñett yooyu benn excité mbax gi mu tax xamu yópp ko li mu doon sëkkante si acide te acide boobu mooy indi brûlure yi donc moo tax ñu leen di très meew su ngeen amee ulcère te ñu bëri da ngay gis léeg-léeg boo amee ulcère ñu la naanal meew or que sensation boobu ngay am c'est temporaire c'est passage yàgg da mel ni calme na mais buy ñëwaat métti day doublé ngeen sóoraale loolu lu am mante aussi muy tàngal mante bi ngeen di màcc muy lii nga xam ne naana aussi boo ko dee jël te mu am mante dafay yokk problème mu ulcère boobu surtout boo amee reflux gastro-œsophagien parce que mante bi da fay oubbi li ñuy wax le sphincter sphincter boko ko moy li nga xam moy presque tëj mbaax gi ba boo lekkee lekk du yéegaat li nak da koy indi da koy détendre da koy oubbi su ko ubbee nag acide bi day yéeg dina indi brûlure boobu ngay am kii tamaate lo aussi dafa am acide acide bobu su wàccee seen mbaax gi dafay excité bu ko defee day indi day yokkaat encore sécrétion boobu nga xam ne acide chlorhydrique boobu nga xam ne mbaax gi moom lay sécrété donc te xam nga ne acide chlorhydrique boo demee si usines yi defar weñ moom la ñuy raxase métaux yi moom la ñuy nettoyé métaux yi acide boobu xam nga ne xajul si vraiment mbaax bu fekkoon deru biir amul lu koy protégé kon kenn wax dugg. voilà donc loolu mooy xeetu lekk yi nga xam ne tey jii da ko war a éviter bu fekkee am nga lii ñuy wax ulcère gastrique donc nga xam ni léeg-léeg nit ñi daan nañ am ay xalaat yoo xamante ni. daawul nekk xalaat yu jub parce que bu njëkk da nga naan wax nit ki bu amee ulcère ñu la jëlal meew or que meew mi en fait baaxu si donc loolu benn information la buñ doon joxe leeral ko ñu ne nag léegi boo amee ulcère nan ngay def bala ñu ñëw si aussi traitement parce que am na benn traitement par les plantes nañ si dellusiwaat mais dañu bëgg a wax aussi benn xeetu supp boo xamante ni noo koy toggee ak noo koy defaree te mu baax si ulcère hmm? moom la ñuy wax la soupe anti ulcère ulcère donc supp ant ulcère supp ant ulcère boobu noo koy defaree mooy nan supp la boo xamante ne ndox rek koy togg ak légumes yi doo am diwlin doo am benn xeetu diwlin du sa am ndaxte xam ngeen ni huile boobu tey jii boo amee ulcère jël ko dinay tax ay remontée gastrique yomb la te remontée yooyu indi ay jafe jafe jafe donc supp bi noo koy toggee mooy nan ndox maa ngi nii moom nga koy ñu liggéey kaas bii la ñu leen indil lu tax ñu indil ko mooy moom nga koy natte boo amee kaas bu toll nii baax na ñetti kaasu ndox nga koy ñu ngwel supu soo paree supame bi da nga koy fejar ba sew sew nga am kaas aussi bu bom nii moom supame bi pomme de terre bi da nga koy sew aussi nga am si diggu kaas boo samee moom diggu kaas bi baax pomme de terre bi soble bi boo ko fajaree sewit am kaas bu bom nii soble bi kànja gii ñu leen di woon ni kànja li mooy kànja moom lu baax la aussi pour ñu am cholestérol pour di ko utiliser lu ba day wàcc cholestérol moom mii boo ko haché da siy wut lu toll genn wàllu kaas moom kànja bi aussi mooy ak supp bi kaani salaat bi ñu koy wax poivron aussi da nga koy fajar nga am si genn wàllu kaas kaas bu toll nii lii ñuy wax céleri aussi céleri bi da koy fajar nga am si lu tolloog kaas donc moom kaas lay doon ba mu fees su ko defee léegi yooyu mooy li nga xam ni moom ngay toggee su fekk soo jëlee sa ndox nga jiital ko sa marmit bàyyi ba mu commencé baax nga jël légumes yi ma la wax nga fayal ko ba mu sew nga dugal ko si boo dugalee da nga koy bàyyi mu baax diggante fukki minutes ak juróom ba ñaar fukki minutes demal daal bi ne légumes yi ñor na parce que boo amee ulcère aussi la ngay lekk dafa war a ñor boo demee ba xool ba gis ni la nga sa def ñor na nga soog a ñël nag si li nga koy épicé épice nag ñett lay doon benn bi mooy jinjeer jinjeer bi boo si amee région bi baxna bu toll ni soko defé nga debb ko ba mok def ko sungu bok en poudre mo gën nga tek njer bi eh, xeyna buñu len na faj ulcère na jaxal ñu bari mais dafa am 11 composants yu nek ci ginger yo xamanteni ay anti ulcère lañ bi ci ñëk moy ban le 6 sorgol amna aussi le 6 gingerol amna le 8 sorgol amna le 8 gingerol amna le 10 gingerol amna li ñuy wax ar curcumène amna na si jinjër bi amna luñuy wax beta bisaalen amna na si jinjër bi amna luñuy wax 6 gingin diol amna na si jinjër bi amna luñuy wax beta sesquiphélandrène mom amna na si jinjër bi amna luñuy wax le 6 ginger jaune amna na si jinjër bi amna luñuy wax le 6 paradol moy 11 composants yi nga xamne mo nek nekk si jinjër ba tax muy faj ulcère te ben bu su anti ulcère la donc ñi wax ni jinjër xeyna buma amé ulcère donc ko dañu xamul donc yoy moy 11 composants yi nga xamne ñoo nek si jinjër te muy faj ulcère jël sa xorom polle xorom polle bi da nga koy dëbb ba mokk nga nat si lu tolloo kudd bu mag mooy kudd à soupe euh, kudd bi ñuy lekkee kaani bii xam naa ni dana jaaxal ñu bari bu may euh, laaj tegtalee ulcère di teg joxe kaani dana am ñu jaaxal mais bu mu leen jaaxal parce que kaani bii dafa am lu ñuy wax capsaïcine te capsaïcine boobu kii waxuma sax li muy faj ulcère mais c'est une prévention même contre l'ulcère gastrique ndax dafay protéger der boobu maax leen ni moo lalu si mbàq gi ba tax acide bi du sa biir kii daf koy protéger ndax capsaïcine bi kaani bi boo si amee benn bu doom li gën nga weer ko ba mu wow nga def ko sunguf bu ko defee ñett yi ngay boole muy kaani bi xorom polle bi ak jinjar bi soo ko defee poudre nag ba mu nekk poudre nga jël ko moom ngay sotti sa supp fekk mu ngi waaj a ñor boo ko sottee bàyyiwaat quelques cinq minutes nga yàq supp boobu wax nañ ne si kattanu yàlla soo ko dee jël yàlla mën na la dimbali ba bu fa fekkoon microbe da koy écraser donc loolu mooy li nga xam ne mooy xeetu lekk bu ñëwee si nag si traitement bi par les fa la ñuy mujjee kii moom la ñuy wax ngi gis yaakaar naa ñu bëri xàncu ngi gis ngi nii ngi ñu bëri xam nañ ko kii xobu ngi gis bi bis bu ñuy ñëw si choléra danañ si dellusiwaat ndax dafay faj choléra choléra nañ yëpp jàpp ne am na garab danañ si ñëwaat donc xànc ngi gis kii soo ko jëlee nga def ko poudre maanaam da koy kii ba mu mokk dem ñu waral la ko mu nekk sunguf saa yooyu lekkee ba noppi nga jël si genn wàllu kudd bu ndaw def ko si genn wàllu kaas ndox bu tàng yëngal bàyyi ba mu tey nga naan si kattanu yàlla da koy cicatriser bu doon góom bu ne si biir muy ulcère boobu dafay dem ba woowal ko dafay dem ba wéral ko si kattanu yàlla loolu daal lañ leen indiloon tey ji si seen feebaru ulcère di leen wax ni ñu ngi leen di gërëm di leen sant leen jox rendez-vous si beneen émission seen wér-gu-yaram jërëjëf